wàllu yoon observateur xëye mbir mu duppee càccum bateau engrais ca pooram ndakaaru ak ñañ ci nar a déglu ko mooy wul fan yi di ñëw te ñu nekk ay boromi tur yéeni kaay bu groupe Futurs Médias ne kañ ca njëkk a jàpp nag teeku ci kaso bi jàppee ko ndey mbill gi soxna suñ naan ndey non si ñang di njiital kër gi di transcontinental transit lañ ko toppee di rawalem junniy tonni engrais valeuru ñetti milliards yu tegal 989 dib engrais bu doomab turki bi di xawul chanda fa ku mel ni ancien promoteur de lutte bi di Aziz Ndiaye mag ja Massata Ndiaye ku naan Aliou Diouf ak Arona Ba nee na it ku naan Mamadou Ba moom jot na ca rawale fukki junniy tonn ak benn ci urée Atoumane Sy ak ku naan Ako it yéene kaay bi ne ñu nga ci xolub mbir mi observateur ne yoon nag jaare ko ci juge deuxième cabinet Mamadou Seck ku may wul ñu jox délégation judiciaire waa sûreté urbaine ngir ñu xóotal gëstu yi tàmbali déglu yi ngir na du ñàkk opération yi ñu jógte woon ngir ko dañuy des ak yoon ak mbiri Barthélemy Diaz ne fukki fan juróom ñett ci weeru mai lay xam ne ay mbiram di mujjee ginnaaw bu tribunal jàppee bis boobee ne bisab délibéré bi bisab waddal dogal atte bi l'info ne lay yoot Barthélemy Diaz mooy kaso bi prison ferme ndax procureur chargé na ko laata muy sàkk juróomi ati kaso ci moom avocat njabootug Ndiaga Diouf ne kenn du ca njaag ci paat gi ko mooy moom Barthélemy Diaz avocat bay sàkku téeméeri million ak juróom fukk ne nàmpaay waaye Barthélemy Diaz wedd na ba mu set wicc kàddu yooyee ndax nee ba rey Ndiaga Diouf tukkeewul ci ngànnaay la mu yoroon ca nu koy teg du benn firnde bu ko dëggal mu teg ca xamal ëttu atte bi moom Barthélemy ne dogal bu ngeen mën a jël may wéy di doon meeram Ndakaaru les échos ne tey la Barthélemy Dias gën a weddi tuuma yi nu ko teg xamle ne daanaka fukki a ngi nag mu ne ci contrôle judiciaire la tribune ne ay menaces moom am na ci postam ne meerab Ndakaaru te ko moywul mu ñàkk mandaam yéeni bi dellu ci bukki ba màttoon Khalifa Ababacar Sall waaye ay farandoom Barthélemy ñu ngi teel a xamle ne ñoom duñu nangu benn yoon a meerab ndakaaru bés bi la jour ne sagar moom mu ngi xeeñ ci ñaari fauteuil muy bu meerab géejawaay ak bu ndakaaru meeru ndakaaru bi juróomi ati kaso di yoon ak meeru géejawaay Ahmed Aidara bu ñu yëlëb ba daanaka tànneetul ab xob ca bureau ba ci mairie ville géejawaay le mandat gis ne yeewi askan wi ci boppam la xare bu métti ci wàllu politique di yoot ak procureur bi sëkkatal Barthélemy Diaz naka noonu Ahmed Aidara mi ñu néewel ca géejawaay Boubacar Camara faf moom takki bagaasam bàyyi ko ci goge kuréel yéenekaay bi di réew mi moom ak li xew ca géejawaay gis ne Aliou Sall ci boppam moo fayu ci kaw Ahmed Aidara loolu war naa tax sax opposition bu seen bopp daal di dem bennoo ji doon benn dànk le mooy moom dafa xëy tey ñetti fan ci weeru mars 2022 ci pàttaliku la woon bis ne tey daaw ci fitna pëccëxoo ci réew mi ndakaaru rawatina ndax coowal Ousmane Sonko aji saa fukk ak ñeent ci bakkan rot ci lu ëpp juróom-ñetti téeméer am ci gaañu gaañu milliards yu bari naaw ca ndax yàqu-yàqu yu bari ca mitti ci ndaw ñeeg yenn wuyu yi enquête moom ñëw ci lébu geeg seenug mer mu ne ci ndakaaru ndax dañ fee mujjee xate ak suuf suñu leen xañee fu ne mer gi mu ne dale ko ngoox baax ñi jaar Wakaam Rufisque las la mu xëyee mooy la mu duppee safara gi liggéeykat yi di ay vigile di dund ci Sénégal rawatina jamono yi payoor yu bon naka noonu sedd bu métteeg ngelaw li ca du leen teree monte muy guddi di bëccëg guerre ba ci Ukraine li wolof naan yoonu jàmm soriwul Sénégal ne keccet ko ca moom dafa absteniru ci bi ñuy wote keroog ci ONU contre Russie fii ci Sénégal sunu yitte bokk na ci njàng meeg tolluwaayam Le Soleil ne ñu ngi ci jamonoy rattrapage gi di dabu dem président Macky Sall la mu bëgg gi mooy digaale ko jàngalekat yi na ko noonu ak taxawal jëm ci conseil national de l' de la formation conseil des ministres boobee nag yéene bu aan xamal ñu ne njiitu réew mi président Sall yamul ci wàllu njàng mi wax na ci kàddu yi imaam Mamadou Lamine Sall yi merloo kerceen yi rafetlu ko benn yoon du kàddu yi defarit mu ne te sàkku na ci ñiy jàllale presse bi ñu boole ci mat di responsabilité